te di leen nuyoo fii ci kër Serigne Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Khadir di boroom xam-xam di imam di gëstukat tey jii nag ñu ñëw fii ci ndigalul Serigne Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru Sowal eh, commission culturelle bi nga xam ne ñoom la Serigne Sidi Mbacke digal ngir ñuy yëngu ci dajale ak gëstu. ak euh, tasaare njàngale mi nga xam ne sunu kilifa gu baax googu bàyyi woon na ko fi muy Cheikh Abdoul Ahad ci wàllu ay kàddoom wala ay jëfam yu rafet yoo xam ne ak ay jikkoom yoo xam ne nit ñi mën nañ cee jariñu euh, ñoo teew fii tey ngir fas yéene taatan si ay kàddu kàddu yu témoignage ak ay kàddu yi ndénkaane ak ay kàddu jëflante yoo xam ne euh, am na ci diggante sëriñ bi ci yum xam ci moom ak yoo xam ne dundu na ko ci moom ci Cheikh Abdoul Ahad eh, ñu ànd nag ak commission bi ci président commission bi di Cheikh Abdoul Ahad Jaxate eh, sëñ Abdoul Ahad Bousso Muxtaar sëriñ Abdoul Ahad Ka mu sëñ Modou Kabir sëriñ Abdoul Ahad maam mu bàyyi sëriñ ak man mii di wax ak yéen di Abdoul Ahad Bousso mu sëriñ Cerno ñu ñëw nag ci sëriñ bi sëriñ Sidi Abdou Khadir ngir fas yéene ko dégg suñ micro mu ñëw ñëw rek dañ koy jox rek mu ñëwal ñu ci eh, lum xam rek ci Cheikh Abdoul Ahad suñ noppee nag ci mujj gi xam ngeen ren ji am na thème bu bu am solo muy Maodo ren bi e, ci diggante Cheikh Abdoul Ahad ak jàmm muy attasaamo maanaam xajoo e, li ci Cheikh Abdoul Ahad jëmmal ak lim ci indi soo defee ci mujj gi mu mu indil ñu ko ci kon sëriñ bi ñu jëbal la kàddu gi bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammad wa alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di jaaree di nuyoo bi ci sama bokk yi nga xam ne ñoo fi ñëw tey te yore commission culturelle bi nga xam ne mooy yore jëm ci màggal ko sunu waajur sunu sëriñ ak Cheikh Abdoulaye Mbacké ñu teg sunu nuyoo boobu ci yéen dañ jot suñu ñu ko ci sunu kilifa ba sunu di sunu xarit di sunu soppi di sunu mbokk sëriñ Sidi Mbakke xalifa Cheikh Abdoul Ahad Mbakke ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te dolli ko wéram ak kattanam ba li liggéeyal waa juróom liggéeyal maam mu def ko man ak kattan sanu ànd ko moom di nuyu mbok mboolem njaboot ko Cheikh Abdoul Ahad Mbakke képp nag di leen bu baax ci bés bu tedd bii ñu jëm yu bésub sunu waajur bésub Cheikh Abdoul Ahad Mbakke di leen baax yéen commission culturelle bi tamit ci tànk yi ngeen di tànk bi ngeen taxaw di ko taxaw ci suñu bis boobu nga xam ne ñun ñëpp seq na ak seen laat loo xam ne war na bu bis bi dikkee ñu ñëw taxaw taxaw yi ngeen taxaw waaye wutu gi ngi tuuti nag ñu leen ci gërëm wax sant li tax nga ñëw fi nag muy Cheikh Abdou Lahad Mbacké nit la koo xam ne ku yamba waxtaane la moom monument la woon ci ci lislaam doon symbole ci yoonu murit nekkoon bâtisseur tam nag tabax lu wér ci yoon bi koo xam ne saabu bu jamono taxawee rek toujours mu fàttali la ko fàttali la ay taxawaayam ci mat gi ci bëgg sëriñ bi loolu mu waxoon ne li mu bëgg a doon mooy taalibu sëriñ Touba bu koy liggéeyal di sàkku ngërëmam. mais nag loolu la defoon moom. ab jëm jëmuwaayam loolu nag wax yàlla def na ci la man ak lu mën lépp ba ñëpp saare na tariw sëñ Tuubaa bu wër ndax mboolem ñu seqaloon sëñ Tuubaa dara ci Cheikh dara dara ci Cheikh Amadou Moustapha ko ku Cheikh ku Cheikh Moustapha bàyyoon xel la ku jaxasoo woon moom la ku daa ku daa jëflante donte booba sax gone la ci moom ay xelam doyoon na ko ba fonkoon na ko lool looloo taxoon mu kàbb mu joxoon ko yóbbuwoon ko foofa kër googu kër Cheikh Moussa Sall fa moo leen defaraloon kër ne moo fay jëm ba nappee ba fay ba si ñoom las xamal ne kii mooy woon kon kooku seqoon na noonu la meloon ak Cheikh Modou Bachir waaye meloon ak Cheikh Modou Fadel tam nag ànd ak moom ci taalibe bi ñoom ñëpp ba làq seen gërëm bi fi nekkee Serigne Touba itam nekk fekk rakam ndaa taalibe bi googu la jàpp ci ñoom. kum ci gis da day jàppe moom sa sëriñam loolu nag bëgg gëm bëggoon sëñ Tuubaa bëgg doon taalibe moo waroon loolu ndax boobu mooy kilifa ñëpp kon royteef la ci wàllu bi muy ko amoon taxawaay ci diine lislaam itam nag fu lislaam masa amee ab taxawaay bu ay jafe-jafe rek Cheikh Abdoulaye dana ci taxaw dana ci wax ba loola seddu waaye nag bu dee ci suñu yoon wi nag moom taxawaay bi ñu ci taxawoon moom néewuma kenn taxawaatu ko waaye yombut taxaw ndax bi mu toogee xilaafa nag ci la njabootu Sëñ Tuubaa gépp nañ mu xamal leen ne jëf ko bokk bokk ak ñoom bu wér du def dara ca ñeen yëguñ ko lu mu am itam sëddoo ko ak ñoom noonu la fa nekkee woon ak ñoom seenu njabootam mu jàppaleen ne ak njabootam daa leen taxaw damay wax ne toujours dañ koy fàttaliku ci nu mu daa taxawoo njaboot gi daana fexe ba njaboot Sëriñ Tuubaa gi nekk ak bokki Sëriñ ak taalibe yi mu xam seenu njaboot ba at mi dana am ñaari ñaari ñaari cérémonie yu mag yu mu ci def yoo xam ne ci koré ak gàmmu yoo xam ne da ci dayale mataam soxna ak jigéen ñi mataam borom kër xam day liste kër gu ne dana laaj ña fa nekk ca mu dajale leen ci këram def ci la ca lépp ba ngoon mu soog a jox ku ne sa sa soxna may fàttali ko naa ci joo xam ne dañuy toog ba takk fan ndax ndax borom séet yi dañuy dajale ci néeg jigéen ñi dajale bu dee ba takk fan ñu kii yorum liste bu dikkee ana si tàngam ñu ne maa ngi nii ñu soxna ana soxna ñu boole leen oto bi yóbbu leen seen kër noonu la ko daa defee kaay dikkaat ana suñ nangam nga maa ngi nii mu dem ci ana soxna ne maa ngi mu yóbbu leen noonu la daa doxalee ci bokk gi loolu muy loo xam ne nag wax dëgg yàlla fii man amoon solo la loo xam ne day nit ki xam ne am na kilifa hmm. li nga xam ne sax saa bu ma dese danaa ko fàttali ku mooy événement yi lu mel ne koor ak tabaski koor ak tabaski bu ma saa jot sëñ bi laa am na oto boo xam ne sëñ si di mi nga xam ne mooy ab moom la daal teg ci oto ba mu séddalee suukar si ñu ne ñun ñii sama kër gii suñ daanaa toog oto korne ñun ma sëñ si dee nekk ci buntu bi ma dikk mu wàcceel ma suukar dama sëñ bee la ko jox bu tabaskee itam noonu la daal def mooy nekk ci kanamu oto bi ñu def ci xar bu dikkee kër ñi nga xam ne sëti sëñ Tuubaa la ca am soxna ñëpp dana leen jox xar ñi nga xam ne ñooy sëti sëñ Tuubaa yëpp ci am kër yi dana leen jox suufu koor yu am solo la yoo xam ne day tax kin yëlëf boo xam ne am na kooku yëlëf ca bàyyi na ko xel kon yooyu yëpp lu ñu koy fàttali ko la muy taxawaay rafet yu mu daa def ni ko noonu itam am ak xew ci njaboot gi bu ko yëgee dana ñëw la ca war nga fi ko ca même bu la ceetalee ba noppi nag bu amatee ngénte wala weneen xew la ca lépp da koy gàddul boppam def ko ci ndax xam ne jàpp ne sëriñ bi moom mooy sëñ moom moom la war ci ñëpp te moom la moom moo war taxaw ñëpp yooyu nag ju amoon solo la ci yoon wi te wax dëgg yàlla personnellement man manqué na ma lool ci sëñ Ablaat te lu ma lu ma neex ci moom la kon muy ku daa taxawu bokk yi bu baax a baax njabootu sëriñ Tuubaa gi itam man ñaari kër yi nga xam ne xam naa ne muy kër Cheikh Sonia bu Mbàkke ak kër Cheikh Abdou Khadir ñoom laa gën a xam ci kër yi fee laa yaroo fii la fii la bokk waaye kër yooyu gis naa ne daaw am bis ñaari fan yoo xam ne ndaw sëñ daal ñëw fa mm-hmm. bu dee yiy ñëw ci moom sax daa mujjoon da koy def liste li nga xam ne xam na ne dana ñëw at mu jot naan leen bu ñu dikkee wàccal leen ma lii nangam mm-hmm. gis bu mu wàcc jotu li ma gis ne xarit nangam bu loolee bu matul nag bu dee ñaar mu yemal ko ba mu seen xarit bu dee lenn mu ñu gis ko seen xarit noonu la doxale woon ak moom mu doon diggante ak sëñ Abdu Xaadir nag ñoo xam ne danoo doonoon soppante sëñ Abdu wax ne sëñ Abdu Xaadir perkal bi mu jël rek na ñoom ñaar ëllëg rek gopplan da nga leen di boole liggéey boole boolewu doo liggéey mu ñaar yooyu rek dana seere foofu la tolloon moom sëñ Abdou Khadre itam fi mu tegoon sëñ Abdou Lahad fàttali ko naa sëñ Abdou Lahad dafay yónnee moom lu jógee ci sëñ Abdou Lahad rek barkeel la ko jàppe bis dafay yónnee ay fëgg ay kawas ak saabu yooyu nga xam ne ay baar la ndax baar yi waaye bi ñu ko waxee sëñ bi dañ leen ma tànnal yi ñu ne ko ah déet lii de fëgg jaay ma ah, sëñ bi la jógee nañ ci tànn nañ ci tànn <laughs> waaw ñoo dama yaakaar ne dongay dongay daara yaa tax mu indi ko fi de man ah mu ne ah, waaye waaye nañ ci nañ ci wut kon ñaar rek jox ma te kawas pëgg noonu la tànne baara yi itam ñun ban ko xeloon ne ko baara yi itam yaakaar ne daara yaa tax mu indi de mu ne waaye nañ ko ci daal di wax ci wax ci loo xam ne sañ xam loolu man daal ne yi de ku ci sangu doo doo rapati mukk ku ci fóotam doo rafalete man amoon naa ci denc waaye man man de sax na ma léegi <laughs> ok na la bindoo woon ci moom itam bëgg sëñ Abdou fonk ko maa ngi fàttaliku bi sëñ Abdou waxee ci ci ci ci waxtaanu ci Abdou Diouf mooy bi muy digle ñu woteel ko tax ni ko war am ko sëñ bi ko fonk la kooka su fekk ñu tëdd mu toog ci mbaar mu di mu di ko nuyoo moom sëñ bi ko dem nekk sëñ bi sëñ bi rajo yi mu at bi rajo jug ah tubaarkal waxtaan na ma lu mu wax waaye ne ko ah, tey de moom xam naa wax ji daa mel ëpp sëñ bi dana dana jug dem te kooku fonk la dugg ci biir ndiir day mu desaat waaye nag sëñ bi du wax lu ëpp du def lu ëpp tàll ma ñaan la <laughs> ah du wax lu ëpp du def lu ëpp ba mu génnee ma defoon naan ko yeewal waaye yeewut <laughs> ñoom itam faaw la ne woon ci bëggante ak soppante ak doylante kon nag ñun ñi ñëpp dañ fi nekkee da moo doon suñu lépp seen xol def ñun dara lépp seen laat moo ko waral ba kon noonu la ma doon seen xol waaye noonu la ma doon kër yëpp nag kër ñu soñe bi nga ma dëkkoon noonu la ma doon seen am ñetti fan ñeenti fan yoo xam ne ñëw kër ñu soñe booba te man mosuma fàttaliku ñun suñu soñe ma nga jëm kër seen laat ba mosuma ko fàttaliku dama fa nekk lépp waaye doo am ñetti fan ñeenti yoo xam ne ñëwut toog moom waxtaan dem te noonu la def ko suñu Cheikh Sary def ko suñu Mourala def ko Badiane May def ko sama moom kon roy royukaay la woon ci wet googu gépp waaye nag fi ma ko fi ma ko gën a newee mooy digganteem ak njabootam ndax lu jafe la tolluwaay bi mu tolloon nga fexe ba sa njaboot dugguñ sa la nga yor te loolu moom réussir na ko doomam yaag man mi ñoo yemoon ci xilaafa gi kenn xamut lu muy def kenn xamut lu muy doxee bàyyul leen dara maa ngi fàttaliku bi ñuy woote liggéey mujj bi ci barab bi mu xam ne moom lañ doon defar ba xam fekk xam nga daara la dem xaalis fi la bàyyoon xaalis bi noonu la ko Cheikh Saliou ak defaree ginnaaw bi seen doxalin jox na ko xaalis bàyyi Sëñ la ko dénkoon yàggu fi. daa defar may defaraat mujj barab sëñ Tuubaa ko joxoon kër Ndakaaru soxna may bàjjan may moo ko na ma diw sàngam damaa jox kër koy jaay def ci liggéey ma bàyyi ko ba ci suba sama delluwaat dem na ko ah démb nag maa waxoon ne dañ laa jox kër Ndakaaru mu ne ko ah, moo tax a dégg daal ginnaaw da ci kër Ndakaaru moom liggéey moom dana egg bu soobee yàlla bàyyi woon ko fi njaboot gi ëllëg dana ko soxla mu mu yaakaar naa mu gënoon gënoon mu ko soxla nay dara laa fi bàyyi sama njaboot fas yéene fi bàyyi dara lu dul ak taalibe leneen loolu fa bàyyi da daan ci yàqu bàyyi yàqu yàqu ko foofu la ne xam nga dum moo tax bàyyiwul bàyyiwul ak dara man ñaari kër laa xam ci moom ñu fi bàyyi muy belal ak këram gi xanaa géej ci géej ci ndaamaatu ci kooku joxoon na ko Sëñ Abdou Khadre kon kooku loolu itam mm, jafe la te toog fi ñaar fukki at ak nangam doon Serigne Touba ca bàyyi woo fi dara bu ton dimanche joojee la mu yendoo kon xaalis fu bàyyi ba mm. ngoon loolu la la fi ci xaalis li muy doon doon xalifa li ko daan dikkal lépp daana xëy na baara dama toppatoo kër gi dara du fi ne ndax lu mu ba ngoon la fi ñëw mu sëg cee mu génn wàcce loolu dara yooyu yëpp nag lim yane woon ci yoon wi moo tax mënoon loola kon kooku ku mat a lu baax cay xool aw doxinam lim def nag moom lenn rek da cee doon sëkk tuubaa gi ni mu ko satale ci li ne woon koo xam ne xawoon nga dëkk bi ni meloon ci yi ñuy tere màggal ma saa jot fii ci penc mi man ma xam ne buntu kër Sëñ Abdou Khadre bi foofu yëpp ay taabal lan daa teg foofu di ci jaay ay kerees ak ok ak cigarette ci penc mi di def ay géew ci penk jumaa ji teg ko saan tëgg fecc ay sawar daanaka lay doon ak yéen itam yëpp boo demee Darou Khoudoss ci ni xam ne boobu moom carte kat yëpp fa lay ne fees dal man kuy carte ma ngi ñëw foofu nekk fa am fa ay yooyu nag koy képp satal ko ci dëkk bi doy na sëkk ci bilan boo xam ne bu rafet la waaye nag kër sëñ Tuubaa gi itam bu fi amutoon na nga ni suñu ne ku fi nekkal sëñ Tuubaa da nga sore jumaa ji lool te loolu itam ab xelam ak xalaatam moo ko tax mu taxaw fi mu tax ku fi nekkal sëñ Tuubaa itam léegi kër sëñ Tuubaa bu fi pënc mi ngay am waaye itam kër sëñ Tuubaa yu bari am na ci réew mi te mooy ndey ji mooma kon nag fu ba kër sëñ am ci réew mi rek ma si na ko sante Cheikh Abdou ndax am xelam ak xalaatam moo ko taxawoon india saatam yi am solo mooy daari ji xam ngeen ne sëñ Tuubaa ci naale sëñ bi la bokkoon fii fii ci bayti école daraxus ba bu ñu jàngale tubaab sëñ Tuubaa fi tabaxoon xam nga njëriñ daa baroon ay lakk lool sëñ bi yi lakk rek ak dund mu woon suñ mën du tabax loo ko fi ne daa bëgg ñu fu ñuy denc téere yi moo waroon loolee foofee ak fu ñuy denc dund mooy sàq ma mu newoon ñaar yooyu sëñ bee ko naaloon ginnaaw bi nag xar faru sotti sax nga sëñ bi daa bañoon tubaab lool wax nañ ne sax li tax mu bàyyi téere moo yi ñu koon mori ci biir daa mbirum tubaab sëñ bi daa bañoon tubaab moom tubaab moom amu ci woon masla kon nag loolu naaloo sëriñ boobu moo ko matal fii ci ci dëkk bi tabaxal ko kër goo xam ne si ay centaine de millions la ci defoon ci booba jëndewaat ay téeméeri téeméeri ñoo jënd ay téere waaye nag njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp mu leen di bindloo alxuraan di bind leen xasit di fa dajale loolu itam liggéey la boo xam ne bu Sëriñ Tuubaa gërëm loolu ndax naanu naalu sëriñ bi la université bii nga xam ne moo lu sax mën taa taxaw tam moom moo ko sos moo ko taxawal moo miir miir bi fa newoon ba tàmbali fa liggéey liggéey yu bare tama fa jàkka ginnaaw bi la ko la la ko bàyyi ñëw songaat jumaa ji def yokk jumaa yi ak ak ak barab bi loo tax mu taxawal ko waaye loolu lépp bu mel bu fa bayal ba nekkee barab ba nekkee ak liggéey ba ñu koy mën a eggale grass à Cheikh la kon yooyu yëpp tax na mu yi moom mënuñu ko fàtte ko ndax ab taxawaay bu rafet ci yoon wi mu soog a indi nag jokk jumaa jooju ma tudd ak ak yeneen yëpp yëpp muy koo xam ne nag bu jamono masaa toll fii itam fii réew mi toll ci naqare ak xat sëñ la ay toni toni pepp ci magasin bi kulle yëmi nañ ko seet lii ñi boo demee ba masaa min bi ngay dem fekk ñuy rang ba keroon nawet bi jeex du ko bàyyi bët bu sat lu bon bon bon dana séddale ma cinq cinq tonnes ci barab bi ci ci magasin bi nit dañuy fanaan ay su ko xam ne day yóbbu mag ñaari ñaari doomam tam fanaan ba suba kure bu la joxee boo boo xëyee da nga jaay am lu dundi am la lekk boo guddee nga ñëwaat rangsiwaat te ay téeméer nit téeméer yi ñoo fa loolu tam mm, lu muy lu ñuy fàttali ko sëriñ bi la kon ku daa taxawu nit ñi la way néew doole moo tax sëriñ bi si sax mi ko koy mi ngi koy mi ngi koy wax foofu ci wayam boobu nen kam min faqirin ka ibin xala zaxatukum wa wa aaba yasurukum kam kam wa kam kaw bi <laughs> bara ñu ñàkk ñu daa ñëw ñëw sa kër waaye bu ñu dellu dañuy sant bu baax a baax kon noonu la meloon nag ñëpp ci ay taxawaayam taxaw ñëpp doonoon nit nit koo xam ne kam yàlla mayoon na ko ci fasaatu lisan ay waxam kenn du ko laaj te fu ne ma wax itam ñëpp daan taxaw te ay wax itam du gàtt du gudd loolu mooy fasaatu lisan li mu bëgg a wax dana ko wax mu leer nañ toccal ko boppam na ma ko waxoon leeral ko boppam du aaye kenn benn konte noonu la daa waxee ci wax ji tënku lool nag ci lu mu bëgg a wax dana ko wax yàlla mayoon ko ci alxuraan loolu tam buy wax lu mu soxla ci alxuraan dana ko indi laaj ji day mel ne yëpp day taxaw ci kanam mu koy dajale mu doon xakim tam maa ngi fàttaliku dama ànd ak sëñ Maodo Abdou Khadir dem mu koy saa ji bàyyi ne ma kañ ànd ñu dem meloon ba ndikkee fekk ko ci biir ñu yëgle ko maa ma dikkee sëñ bi ne na sëñ maa ma dikkee ne waa ji ma man ma gàntu ma topp ca ma dikkee desaan mu dégg moom ma ma ko bàyyi ko mu ñëw ma dikkoo nuyoo bu ne ma waaw góor mu am nga fula kat ma ne ah. waaw de moom jikko junee nit mën na am ma amal ko njëriñ ba du si ñàkk fula <laughs> ñàkk fula ñàkk moo ko may lii doo ko ko <laughs> dégg nga sëñ moo daan ko ñaanal ma ko ndax ku ma nangul la ku ma dëggal la mu ne ah mu ne ma nangu itam de ci nangu nangu lu nit loo ko bëgg bëgg jox loo ko yéene bu nanguwul la koy jox du jot ku nangu rek la jox <laughs> ñaari ñaari ñaari ikkam yooyu mu neex ma lool ne waaye kon nag góorgóor ci nangu nangu daal lu waaye am nangoo ko may te wax jiite ma déggat ci baat lu ma neexaat mu waxaat mu yaa suñu Modou mu ne ko ci hectare fekkee am na lu mu doon wax ci affaire murid yi mu ne ko ah suñu Modou daal ma yëgal ci murid yi léegi ni bu njëkk dan daa wax dégg jëmal laal sama bopp àddina àllaaxira loo ma déggal ma def ko loo ma teree ma ba ko léegi nag dana wax jégal naa sama bopp àddina waaye sax sam xel doyuma rek sam waaw waaw mu ne dama ko seet laaw lu muy door jot mu ne mu ne ko léegi daal moom nag li wax mooy dimbal na sama waaye nag xool léegi nag loolu la am léegi loo leen déglu ñu bañ la meloon ci xekkimatam ak dogu ci mbir lu muy def lu ci jëmee moom da am bi muy bi def tere dëkk bii coono yi ko fekk ak coow li fekk waaye mu ne bakkanam bii la ci teg ba am li ba réussir marché bi ba mu koy toj noonu la ci meloon marché bi jaaxal na kenn mënu ko walaal waaye ba mu koy toj noonu la ci doon waaye daa xam na ne mën na ci moom dara <laughs> def li muy def ba noppi <laughs> dogg ca lool boobu marché bi xaalis bi bëri na gaa yi bewoon lool waaye. xëy xëy rek ba mu lañ joxe dele ñaan du ko def ak du def waaye ba jotee noo tàmbalee daa jekk toj rek ñu sooyee njëkkanti ñu jël sa bagage noonu la meroon ci mbir mi yëpp dafay am xasmu ak dogu ci li muy def boo xasee ba xalaat ba jub cëm ca moom lam def dana ko def ndax xam na résultat bi résultat bi muy am ni mu yore woon yoon wi ni ko ni ko ni ko sëñ Abdourahmane waaye rek noonu la wax xadibal xakimu bi xikmatin وسياعة وسقاء يدي ساس العباد سياسة الحبد الخديم الملتحد أعماله الجل النفي ستوى العديد في البلد رمز الخضر لسكره ولا هب قريته أبد mu ne dafa liggéeyal sëñ Tuubaa ci ci xikma lu doon def lu ne ci xikma da koy waaye ak njàmbaar nag ak saxaaw yi de ak taw gi la xam sëñ mu lijjanti bu ko ci bu ko doolee mënut léegi mu lay dugg ci xaalis wala taral la taraanga joo xam ne si moom lu mu bëgg ci yow dana ko def dana ko am def waaye bu dee ku yaradi ko nag mu ngi di yar bi noonu la daa doxee nit ñi mu ne sëñ Rahmaan ne principe sëñ Seexul Xadim moom la doon doxe mu ne liggéey bi jëfam yu baax yi mu doon def nag ci réew mi ak ci ci yoon wi moo tax day day day biil kenn du ko fàtte mukk am xale ma tam kenn du ko fàtte kon kooku mooy Cheikh Abdoulaye Mbacké noonu la dunde woon ci ñun njaboot gépp di ko fàttali ko jamono yu ne waaye di di ko ñaanal nag ndax moom leen rek la boon mooy ngërëmu Sëriñ Tuubaa sagub si sagub Sëriñ Tuubaa rek ku ñoroon ak sagub yoon bi boppam dara ñuru ko ci woon bu sañoon daal yoonu murid di jëm kanam yebatu ko Sëriñ Tuubaa nekk ci yoon nekk ci jub ku leen gis ñee leen waaye nag noonu la doon doxee ak yoonu yoon noonu la doon doxee ak tariixa ci yéen yëpp itam nag daw soxla ñu am dara te ci sox ku ci ka mu taxaw ca la ca war lépp digganteem ak noonu la doon doxee moom ñi nga xam ne ne la fi Abdou Diouf Abdou Diouf ñetti weer yooyu moom moo ko bëggoon seen place sax nu mu wutoon dana kon réew mi daa yaatu te ay kilifa dafay nekk ca moom moo forcé na ko mënuma ñàkk ñëw daal wax bëgg naa ñëw waaye sëñ bi laaj ca ñëw taga danaa wax ne bu dikkee na wuti barab sëñ Tuuba moo tax masa si balaa ko nuyu da koy yebal mu jëm siyaare sëñ Tuuba dem daal di ñëw ci moom bu dikkee itam woo ñëpp bokk yëpp lay woo sëñ Abdou sooy ma nga xam ne du dem fenn rek ñëpp lay woo ñu teew itte ju waaye am nag danga ko daa wax balaa ñëw mu bind ko ko defee bu président ñëwee nag ba mu wéeti moom bu dee yow nag ngaa wax it mu woo la nga ñëw nga toog noonu la waxoon nga wax nga wax sa it génn kayin wax noonu laa def mu jeex. day toog day toog day toog donc nii nii bu diw sàngam man woo diw sàng nga dikk nga wax sa it jooju noonu la daal réglé yoon wi nga xam ne dara mënut a jënd ko nag sa jaaroo ci moom. te te te yoon bu wér a wér moo ànd ak moom yëpp ko ci seen loxo nañu bokk toog fekkee sëñ bi am na soxla sama bëri soxla adduna ñu soog a ñaan soog dem noonu la daal ànd ak moom ñetti weer yu ne gan gum am fonk gum fonk gu ne dana ko yebal ci seen loxo doy la woon ko la bàyyee ko léppam nag lu jëm ci diine moom loo ko masaa wax mun la demal ci seen du nag nangoo xam sax weeru koor yeeg digg yeeg lépp loo doon doon xaritam nag bu dëgg jotee mu taxaw wax la ko ku fonkoon Abdou Diouf la doon xaritam lool waaye gis nga weer bi bam bam bam bam bam bam ban fi bañee wari te def communiqué rajo bi lank ne du jàll Sénégal wari ñu wax ñu noon wariwun suba dañu war suñu laa def communiqué ñu yóbbu ko rajo bi ñu ne du jàll bañ ca la waxal wax jooju mooy wax ñaari boycotté RTS boycotté ñëpp fu ne dugaat nan fa ngir bëgg <laughs> te booba xarit sama waaye noon la noonu la daa réglé mbir état moom xam nañ ñu xelante ñoom ndax état moom loo ko wax ci wét ay régalu ko moom loo ko doon pese ko yoonam néew ci mbooloo ca kaw la ragal moo tax moom nag loo boo ko jëflantee moom ca kaw la kaw lay jëflantee moom bi ko bi bi fu waaye Senghor bi mu koy ubbi fii ci forage bi sam wooteel ko Senghor dikk waxen noo xam ne mel na da ko da da da da da fayu ko borom sëñ la daal di riposte ci saasa te saasa dal ci kawam moo tax bi mu diggee ci marché occas nag bi mu sabaxee marché bi mu egg moom itam mu xam la mu daal di wax la mu war a waxee sëñ bi tontu ko tontu bu neex noonu la bindoo woon maa ngi fàtte marché occas boobu ngay wax bi suñ bi tojee ci coow yu bari sëñ bi daa mujj bind la bind wax rajo ci rajo band waa marché yi boobu xam nga bari na ci ay nit ñu dikk mu wax ab bande yónnee ko seen laat di leen tuubal ak di leen jégul seen laat tontu ko ca ko sant sax na ko nag ñoom de li nekk ba tax ñuy sow mi ngi mel na daal ko ku xiif lool añut réer nga toogal ko laax saaxu sow ba sëf ko benn raxasu nga jël laax ba tuur nañ na ko xëy mer ak jaaxle fekk yow defal nga mus ak ganaar yoo xam ne si yaa ngi koy indi la tur gën ko tuura nag di ngeen sos moom neen daal <laughs> daal la mere mere da leen wax luñ dégg bu ba ni mus ak ganaar yi daan xam ne lii tax taxoon nga koy def ak loolu a xam ne marché bi loolu am na fi léegi si naa ak lool Maodo Mor bi ñu jëndal ci wàllu digganteem ak réew mi ci wàllu jëmmale jàmm mm-hmm. ak xajoo mm-hmm. xam na ne loolu ñu ngi ci ay jamono yoo xam ne mm-hmm. kilifa gu mel noonu soxna fa la loolu sax am na solo lool waaw ku bëggoon jàmm la wala ma di jox benn yoon rek xam nga fi bi ñuy feeñ fi ma dégg tukki tukki di ko bëkk démb seen jumaa jooju nga murid ñoo faral julli xiit ak mu la ñu ma la jàkkee tukki la nga waaw fa la murid daa jullee tabaski ak kori bi ne ba yàgg tukki yi bëgg seet tax soxla bari la doon doon murid bañ ba ñëwee sëñ Ablaat wax ko naan leen eh sunna ngeen def ñii neen jumaa leen bëgg a tabax bàyyi leen ñu tabax jumaa ngeen ngeen wuti fenn nan la ko àttee ne yéen sunna képp ngeen bëgg tabax képp ngeen fa jëlee neen ñeneen dañuy tabax jumaa ñe ñe farata la kon nag ñëw leen ñëw leen fexe waaw seen bàyyi foofu sax jox leen nag guy guy singor ñu dandaat tuuti joxaat leen foofu guy singor gannaaw bi rek lañ ko tudd lañ ko tudd Masaalikul Jinaan waaye foofu murid yi ñoo fa newoon ñoo fa ñoo ko moomoon waaye bu tukkee soxla ko da ngay fa bëgg taxaw jumaa boobee murid bañ man ndoroon coow doon jaw yooyu yëpp ci bëgg jàmm moo waral ak yeneen yu bari nag ci ci ci ci ci ci ci ci yoon wi yoo xam ne ci coow dara fa war a yëngu waaye ak ci réew mi itam nag maa ngi wax maa wax dara si rek ku ne xam na ne 88 ak 86 réew mi tàngoon na metti lool. Abdou Diouf am na njaxoon sax xelam demoon na ci bàyyi réew mi sëñ Abdoulaye moo ko demoon toog jàmm rek ma fi mujj ndax booba tàng na lool ay weeri weer yoo xam ne mënut a génn Dakar mënut a dem fenn Tuubaa sax bu fi daa ñëw day jël hélicoptère ah boobu mënut a jaar Thiès Dakar tam ñu def couvre-feu lu yàgg six ba six heures kenn du génn booba booba booba bu amutoon sëñ Abdoulaye réew ma te boobu fii réew mi toll nag fa la tolloon ci tiitaange ak jàqare ay boobu moom taxaay bu mu war a taxaw da koy def wér ci moom ci ki muy waxal wax ko li mu war a def tam nag 86 noonu noonu la defoon gis ngeen fii dëkk bi tam élection yi métti yee fi amoon diggante Moustapha Fall ak Samba la ba kilifa yi doon ñuy far fii ñuy far fii mu indi sol lu bari ba kilifa yu bari doon ci jote ci la jëlee yoon engagement ne dëkk bi politique ne bu fi kenn politique léegi ndax ginnaaw mi ngi bëgg a taqale sëriñ si te lii du dara kuy politique rek demal Mbàkke lépp ci taxawal jàmm la ci dëkk bi waaye nag mboolem yëngu yi am ci yeneen yooyu itam nag da ci laa taxaw yore wér nga xam du neex a wax ci ci ci tara bi sax waaye taxawaayam daal moom ñëpp a ko ràññewoon diggante moom état itam noonu la doxee ñoom rek moom danaa fex danaa wax ne bu itee boppam moom ku mu ko jox gàntul nañ fexe ba bañoon ne ko moo tax bu Abdou Diouf Moussa di tukki wala campagne bu région Diourbel yëpp sëñ Abdoulaye day jël en charge li muy dundee lépp moo ko yenu ba keroog muy génn région bi man ko rek soxlawul dara maanaam buy duggee ci ba keroog muy génn lu ñuy togg luy ñuy jëfandikoo lépp saa sëñ Abdoulaye moo koy moo koy financé ngir bëgg koo xamal ne lu soxla soxlawul dara taxoon na itam nag Abdou Diouf sañ def dara ca. yëglu ko ndax bàyyi woon ko xel ndax xam na ne saa bu defee lu ko war a def rek mu taxaw moom ab àndam moom la noonu la doon defee noonu la àndoon keneen ku ñëw moom daal boo nekkee ci li mu bëgg di taxaw tari yi di taxaw réew mi ci ci xalaat bi nga ko bëggee ngeen juboo boo defal leneen boo defee leneen nag mu taxaw wax la ne dëgg kon nag loolu am solo xam nga am réew moom li ñu waxoon Seydina Omar rek bi nga ko ba foofu melee nii xaw a yëngu te ko ah ba mu laaj woote laajte ñu ne ko luy pexe ci lii ñu ne ko ab yar ngay wut moo li ma leen gis mu leen dee des jom ngeen de as sidqu moo koy réglé al adlu wa sidqu maanu te waaw mooy réglé dëkk bu dëkk bu lëj kon nag il faut que suñu kilifa yi tax taxaw ci xadlu boo amee moom justice sistis bu leer te kii def def dëgg rek jàmm rek ma nit ñi nit ñi daan la nangul laye nag li moom lay gàntu xam ñu nga mujjee rek maanaam yan jikko ngay dénk jeunesse bi ci ñu roy ko ci Cheikh la hmm. dem jikko jikko yi ñu ko war a dafa bari lool waaye man bi ci gën a solo mooy nangu am kilifa ñoom laa dafa nangoon kilifa lool mboolem bi fi ay magam nekkee moom kenn du ko dégg ci dara mu mujj bi suñ mu fallu sax ci yebal ko muy tukki day def bu tukkee ba ngoon lam dajale di ay fanaan si Tuubaa jox ko ko xëyaat fa toppar guddi gi dem nan la war a réew mi doon bàyyi faalu bi suñ fallu waaye Cheikh Moussa Faye itam loolu moom kon nan fexe ba am nangoo am kilifa bu baax a baax waaye dam nangoo yiir sa njaboot tam nag am laat ak kenn xoolaal hmm. ak ndisam boo dikkee la la ko xoolaal da nga xam ne la la am ko am kilifa la man kon kilifa moom day fexe ba am kilifa waaye am kilifa gu la yiir tam baax na ci ñun kon nan li ndaw yi naan fexe ba nangu ñu yilif leen dégg nga topp ndigal nag ci bàyyi ay tere ca bañ a yàkkamti bañ yàkkamti dara ndax yàkkamti moom yàqoon rek te moytu kàddu yu bare yi itam nag hmm, xam nga Sénégal fii ne wax dafay yomb ku ne man gàttal sam ni wax kàddu yooyu nag moo tax dañ ko war de moytu baax a baax ndax li muy yàq moo ëpp li muy defar te da nga ciy lore te doo doo ci jariñ kenn dara kon ndaw ñi lépp solo ñu moom mooy ñu bo nangoo li nga xam ne moom la sëñ Tuubaa tëréew yoon bi daal mooy jaamu yàlla yoo xam ne da nga koy dëppaleeg sunna waaye di moyu ak tooñ tooñ sa moroom jaam wala tooñ sa borom te nangoo liggéey sëñ Tuubaa da ñett yooyu laa digle ku ko ku ko ko jox sa bopp daan la maa ngi lay dénk nga farlu ci jaamu yàlla ndax sunu borom ba muy bind bind wuñ dara lu dul jaamu yàlla nga farlu ci liggéey liggéey mooy tax nga mën a moom sa bopp nga mën a jaamu yàlla moytu moytu ko ak tooñ tooñ sa moroom jaam wala tooñ sa moroom sa borom ndax kuy tooñ kat doo mucc waaye kuy fay itam doo ta yi yii la la la digle yooyu nag ndaw ñëpp waroon ko bàyyi xel di moytu tooñ tooñ ci wax ak tooñ ci jëf te nangoo liggéey ndax léegi nit ñi doo xaw a ñàkk jom lool bëgg nañ teraanga ci nangootuñu liggéey yaakaar naa nañ ci pexe ki tappal rek la ñuy amee la kilifa goo xam ne nee na nit nit li muy li muy dal daj ci def ay tappale boo ko defoon ci liggéey am am ko ni <laughs> ngay def ba amee ay tappale boo boo ko defoon ci liggéey am ko waaye léegi loolu yëpp na ko ndaw ñi mooy bu baax ñu ngi ñaanal bu baax nag ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba sëriñ Muntaxa yàlla yàggal ko fi lool te dolli ak wéram ma li muy liggéeyal sëriñ bi ak li muy bëgg a liggéeyal si yëpp mu eggal ko can ba ànd ko di ñaanal baax sëriñ Sidi yàggal ko fi amul njaboot bi ma lim bëgg liggéeyal ba lépp mu eggale ko ñu leen sant bu baax di leen gërëm bu baax di leen jéggul nag ci kàddu yi xam naa waxkat moom dama koy doon moo tax sama doon fayal sama yéen rek ndax sëñ Blad Mbacke moom daa def ci ñun loo xam ne wax sëñu ñoo wax ci moom ngeen wax ñu bañ caa wax ndax mën naa ne def na ci loolu lu baree bare def na ci moom lim ma daa def naa li gën a rëy ci man mooy toog bi ak ñëw wuyu seen laaj te loolu am naa ko nekk fii doon ba wax gone laa ñu bari ki kiw si ñu bari bari ma soxla toog ba nit dikk na la ñëw wuyu bi xam mm. nga dafa neex ci ab taalibe te loolu amoon amoon naa ko ci moom am na ci moom itam lu lu rëy dama wérédi woon wérédu ma sax waaye dama dama doon jeexal ma bindal ko ab nooru daal yi it ko ko nag wax ko nag mun ci gisuma lu lu ma dal bëgg ma ñaan mu ne waa dama toog ma toog ba kii ba kii ma ma ma dellu ci ëllëg sama dis ma ma dikk nuyu ko rek mu ne waaye Sidi Mbacke fàttoo demal toog <laughs> si si bëgg Fatou Ndiaye toog ah alhamdulilah bokk kon kon baax loolu rek sant bu baax alhamdulilah maa ngi jërëjëf jërëjëf barakallah. barakallahu sëriñ Sidi Abdul Xaadir eh, sant nañ bu baax a baax yaakaar naa eh, ñu fi toog ñëpp xam nañ ne kàddu yi nga xam ne yëkkati nga ko indi na yu bëree bëri yuñ ci mën a jàngate nga xam ne daanaka mën nañ cee tibb lu bëree bëree bëree bëri. ci yi nga wax yëpp te seere ko ci Cheikh Abdoul Ahad muy ci wàllu dogu geeg pas-pas bi bëgg gi Sëñ Tuubaa digganteem ak Cheikh Abdoul Xaadir euh, maanaa ak nim def dëkk bi nim nim ko taarale surtout li nga wax ne doy na ko sëkk bilan mooy setal gi nga xam ne setal na ko dëkk bi euh, loolu loolu di ay kàddu yu surtout yi nga mujjee tamit ci sa diggante ak njaboot gi ni mu mën a taxaw njaboot ni mu mën a jël engagement waaye euh, wàllu xajo ak saxal jàmm ni koy jëmmale ci diggante kilifa yi diine yi nga xam ne lislaam rek la jiitaloon donte murid ñooy ay njabootam waaye teewul su waree atte ci lislaam lay sukkandiku comme ni mu ko ni mu ko defee noonu loolu ay mbir yoo xam ne daal yaakaar naa ne. daa jékki-jékki rek di oto dem fii dem Tiwaawan. waaw du tàggoo. maa mu dem Ndiassane. bett leen bu demee karaan bi bari la ñu baale. allah waaw. nga xam ne moom moom daal Sénégal la jàppee woon ne ak Sénégalam la maanaa ci loxoom la nekkoon dana la doon doxee. kon nag yi am na solo lool bég nañ ci lool. sant nañ ci bu baax yooyu ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax ndax sawar nañ lool ci bokk ak yow ab jotaay ngir sa bëgg xam-xam ak sa jikko yu rafet yi nga xam ne sunu borom jagleel na la ko ci ak mbaax ak ci ubbiku loolu ñu ngi la ciy sant baax te di la ñaanal sunu borom may la gudd fan ak wér yaram kon mbokk yi ñuy seetaan wala ñu ñuy déglu ñu ngi woon fii ci kër Serigne Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Khadir muy commission culturelle bi nga xam ne Serigne Sidi Mbacke Abdoul Ahad moo ko tànn ngir denk leen ñuy waajal màggal gi ci fàttaliku Cheikh Abdoul Ahad ci xam-xam ak ay jikko yu mën a roye ci moom ñu ngi àndoon ak Serigne Abdoul Ahad Jaxate mi président commission bi Serigne Abdoul Ahad mu Serigne Mokhtar Fatickani sëñ Abdoul Ahad mu sëriñ Modou Kabir Ka sëñ Abdoul Ahad mu bàyyi sëriñ mu sëñ Bakkan ak Abdoul Ahad bu so Cerno incha allah ñu ngi leen di jox uh, dig daje incha allah ñaar fukki fan ak ci weeru Sowal ci magro sëñ Abdoul Ahad asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu moom lañu yaakaar